si koro yeesal jàpp moo la si muccal ba ci sëriñ yoro bu àndut ak jàpp gisuma lu koy musal ordonnance yëpp la naan am nañu doonul comprimé dalal ci xel yi comprimé buy confirmé asalaamaaleykum Sénégal nuyu naa leen waaleykum salaam kuli julit siyaare naa leen ba si mbokku chrétien yi dëkkandoo nuyu naa leen tiitaange lëmbee na dëkk xel yëpp jaxasoo nuyoo càmm sant sax léegi dañoo xuloo lu ko waral tawat buy wàlle moo ñëwaat ci dëkk bi lëmbe dëkk fu ne lay salone yàlla ko fi wàccee musiba ak balaa la di ñaan yàlla ñëpp musiba kenn bëggul lii dal la yàlla fi wàcce woon tawat bu ñuy wax choléra mu dellu wàcce beneen tawat ñu naan ko Ebola moo andi tawat bi ñu naan ko jaam la comme yow mission lay dox kon jarul taw di ñaan yàlla ñëpp mucc si te mu jeex fi ba faw dee la jaam ñi ragal lu ñu fàttaliku yàlla dul am na ku dee ba saa su ne musiba yi bare mu andi balaa buy womma dee léegi nag képp ku ko dégg na ko partage maanaam mu dem fépp gaa yëpp jot si te ngeen ne yàlla na fi jeex ba faw te bu mu fi amati wasalaam kaw saara aljana